responsabilité de l'État est, est, est totalement et pleinement engagée. Euh, D'ailleurs, le délit d'opinion n'existe plus dans notre euh, corpus euh, pénal. Euh, Ted Newberry, aujourd'hui, se retrouve en prison pour des posts Facebook, Facebook pour des déclarations. Euh, mais euh, quelque part aussi, est-ce que pauvreté débat politique bi gënul yokk mbir mi le le le niveau des acteurs politiques est-ce que gënul yokku mbir parce que on se rappelle tous yéen de votre temps ci seen euh, opposition ak Abdou Diouf euh, ci seen opposition ak Abdoulaye Wade le débat était très élevé le débat était à un niveau boo xam ne euh, soo c'était difficile sax ngay lëmbëj ba di trouver loo mën a jàppe nit parce que nit ñi dañ doon wax seen xalaat ci teggin dans le respect de la différence de l'autre dans le respect des institutions est que loolu tamit nekkul beneen problème. waaw loolu itam buñ ko seetloo lu tax débat politique bi egsi fi mu egsi maanaam suufe mm-hmm. boo ko seetloo loolu muy commencé aussi ci temps wu Abdoulaye Wade ndax euh, bu njëkkoon parole publique bi. bala nga koo jël day fekk lii nga xam ni dañ ko teg pour waxtaane ko nga xam ci dara mbaa nga mën ci dara ba nga xam ni débat bi ñu ngi koy teg ci argumentation rationnelle ñu ngi koy teg ci réflexion critique ñu ngi koy teg ci raisonnement ñu ngi koy teg ci ay fait probant yoo xam ni dina wóor ni lii buñ ko ci tegee recherche bi wane na ko mbaa expérience bi wane na ko loolu lañ daan teg débat mais léegi lu indi ci débat politique bi koo xam ni xamul dara ci li ñuy wax ñëw attaquer ay nit attaque ay personnes mbaa indi ay saaga lu indi loolu loolu mi ngi ci temps Ablaye Wade mais mi ngi aggravé ci lu lii. waaw ndax euh, sa dëgg-dëgg am na ñoo xam ni boo leen jëlee teg leen ci kaw ci débat public ak ci kàddu public décider nga rabay si. débat politique. donc ce sont les nominations politiques. politique yi nomination politique yi c'est-à-dire léegi poste yi sootatoo kan moo mën ak kan moo xam. ku dàq saaga la. ku dàq saaga mbaa ku la mën a indil électorat ndax Macky Sall xoolam yëpp ci nomination. kat moo mën a indi électorat xoolul kii bu ma ko defee fii ndax liggéey bi muy liggéey dina avancé loo réew mi am déet déedéet mais kii ndax dina mu indil ay électeur nga jël sa dëgg-dëgg ay moroom ki ñuy tudde géwélu Macky Sall nga jox ko sañ-sañ bi mu am ci réew bi Farba Ngom jox ko kaddu bi mu am ci réew mi duma tudd tur nga jox ko ko débat bi débat politique bi fu muy féete ci ci loolu lañ nekk tey loolu indi suufeel débat bi gis nga intellectuel yi nga xam ni ñu ngi léegi jéem a ci débat politique bi tontu yi ñeen di tontu. tontu yi c'est pas à la mesure ci les intellectuels